en réalité li xew lépp par rapport à truc mais nee naa xanaa ay voisin wu Ousmane Sonko nañ porter plainte état du Sénégal nag parce que en réalité ñu war a jël kii rek donc fi jaaroon pour xool la situation rek mais quand même bon c'est dommage quoi c'est dommage c'est dommage c'est dommage qu'on en arrive à cet état là au Sénégal vraiment c'est dommage c'est dommage quoi. bon dama vraiment donc c'est vraiment dommage qu'on arrive là pour la démocratie sénégalaise quoi vraiment loolu la quoi voilà merci beaucoup je vous en prie